ci njàqare akum tiit la commerçant ya nekk fële ca marché bu Ocass di dundu gannaaw ba ñu nemmeekoo dajj gi nga xamante ni nii ñi ñuy woowee borom kat-kat yi noo ngi leen koy def te jamono ji mu bari lool ca seen bërëb boobu lay dëkk bi dafa soppiku ndax dafa nekk dëkk boo xam ne léegi dañu ko bàyyi xel bu baax a baax ci wàllu économie ñu war a sàmmaat dëkk bi xoolaat ko baax ci wàllu doxin loolu léegi gis nañ ne bari na lool ndax Euh, ñetti barab yoo xam ne même barab bi ci lañ ko defandoo ndax benn bi soriwu ma yeneen ñaari ñoo jàkkaarloo daanaka ci lañ koy defee ñu ñaan nag ñi nga xamee ne ñooy autorité yi ñu gën a bàyyiwaat xel dëkk bi bu baax di ko sàmm ndax li ëpp ci li économie dëkk bi fii la nekk ci marché Ocass kon sàmm gi lu am solo la jàpp naa ne kii bi ñu fi defoon bu yàggul mooy kaa boobu njëriñ lu ëpp mu ñëw di monter fii guddi gisuma ko ñëw ñu lee nga xamante ni nii ñooy def yooyu la ñaawteef ba léegi gendarmerie tegagu leen loxo waaye la ñu mën a jàpp rek moo di nii la ñu yóbbu ci koppar tollu na ci juróomi million. bëkk démb fi lañ gaare bitu nga xaarim cuuraay bi lañ dajji yàllaa yi dimbali sax mooy li ma la wax léegi rek dañoo jàpp ñett bu ndikkee dañoo yor booy gardien lañ doon yor gardien yoruñ pusale bu ndikkee jàpp ñett ñi ñaañ ñoo daw bu nga xamee ne ñaañi daw nañ ba si lañ soog a ñoom ragalee def 9 minutes diggante Diop frère maa nga see Diop frère bi ak benn xaarim curaay bi 9 minutes lañ calculé pour dajj ko buñ ko dajjee fekk nañ fi moins de 2 millions yu manqué 100000 fekk fee plus de 3 millions xaw ma 5 millions loolu xaalis da leneen itam lu commerçant yi di ñaaw lu moo di ne ñàkkum kaaraange gi nga xamante ne nii am na ci boobu marché loolee sax tax ñuy sàkku ci gouvernement bi rek mu utal leen ab brigade foofulee ca marché ba. am nañ ci ay jafe-jafe yu métti yoo xam ne waaw mu ngi dal suñu mbokki commerçant yi euh, te wax dëgg yàlla suñu suñ ki woon daal moom daañu ci dimbale bu baax a baax en cas de sécurité ainsi gardien yi tamit liwuñ ba ëpp moom en tout cas métti na daal. sécurité moom yaakaar naa ne c'est moom kiwul à 100 pour cent moom ndax euh, kiwul daal moom suñ sañoon daal dina gën a dina gën a dina gën a dañ ko gën a renforcer daal. dawkati ñaawteef yooyu lii daal mu mel ni noppeeguñu ci jéey yi ñuy def. yooyu le commerçant jafe na lool ngir ñu dund afiya ak itam nelaw ba seen xel dal ndax ndaxte koppar gi nga xamante ni nii euh, saa su ne ñu ngi leen koy yóbbul loolee sax ñu mun ko xayma ci juróomi million ak la ca teg waaye la ñu mën a nemmeeku mooy kenn ñàkku ci bakkanam benn matériel itam euh, jógewu fa